tey ñu ngi bu ngeen gisee teewaay bu jekk bi ci kilifa yu ñu àndal muy mbooloo mu tudd dox jàmm association dox jàmm mi nga xamante ni ñu ngi dog jóg pour fas yéenee dox jàmm ci réew mi ba ci bitim réew taxaw taxawaay yoo xamante ni respons al masuliya responsabilité yi ñu suñu borom jox ñu mën koo téye ngir dox jëm ci jàmm rawatee nañu jëm ci ay élection yoo xamante ni ñun ñëpp ñoo ko bokk te ñoo bokk réew mi bokk dëkk bi te mun ñoo jóg dem fenn ñu bëgg lépp nekk jàmm bu ñu xëyee bu ñu wotee dimanche altine ñëpp liggéey loolu appel boobu ñu ngi koy wootee mbooleem kilifa yi ne ci yii politique ak ñi politiqueul ñii ak ñi voté ñëpp nañu def jóg ñëpp dox ci jàmm di ki jiital nag ki nga xamante ni moo fi nekk di monsieur le président ak njabootam ku ci jóg di def discours ñu ngi sàkku nga def ko ci jàmm ñi nga xamante ni tamit ñoo fi ne ci opposition bi kuy jóg di def discours wala ngay dox ngay dox ci jàmm liñ jublu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 nga bàyyi xel jàmm nga bàyyi xel euh, lépp loo nga xamante ni day indi fitna wala mu di ko yee